ñoom maamam yu baax yooyule ba ci Abd Manaaf bi yonent bi ñëwee te mat góor te yàlla yónni ko te mu war jël soxna yàlla wax na ko ni ko aayul nga jële ko néegu ñi la jur moo xam waa kër Abdul Muttalib la jàpp ci Haasim walla waa kër Abdu Manaf la nga jële ko ci ñoom ndax sécurité moo tax wante ci charte yàlla nangu aada dàq aada ndax bu ne yonent bi jëlal soxna ci sa kër bàjjen yi walla sa kër tànt yi indi na aada moom yàlla te bu ko saxalee àdduna tukki mu dabaatal ko ni ko ci charte ñi nangoo def ni yow risque yi nga may jëlal yépp ñu nangu ko jël xare yi nga ma xareel yépp ñu nangu ko bokk ak yow bu mënul nekk te mënul nekk fekkal jigéen joo xamul ndeyam xamuloo baayam te mu nangul ma nga jël ko aada daw xaqiiqa taxaw ndax yàlla dafa fonk boppam bu mu ëpp te du jox yonent bi lu ko yàqal moom yàlla lu mu fonk fonk yonent bi bu ko dee may du ko may lu ko yàqal moom yàlla looloo tax mu di ko wax ni ko sàmmal ma sama nit ñi ci sa biir nit ñi waaw xamuloo kilifa gu nek amna xarit man na am xarit ba di xaritu yàlla man na am xarit ba bañ nek xaritu yàlla bu ko defé boko samé te du xaritu yàlla togn nga yàlla parce que mo len bolé bit soko samé te muy xaritu yàlla yàlla bekna looloo tax mu wax yonent bi ni ko sàmmal ma sama nit ñi ci sa biir nit ñi waaw te mooy rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah ñi nga xam ni seen cantine yi ak seen boutique yi du tee buñ ma waree jaamu jaamu ma ñooñu ñooy sama nit nga ma leen sàmmal moo tax fayda ci yàlla rekk la des waaw ndax ku xam ni mu bëggee Muhammad ak ni mu ko fonke waaye bu bëggee jàdd rekk mu ni ko du foofu waaw bu yonent bi bëggee naqarlu lu ñu ko santul pour mu naqarlu ko mu ni ko du foofu parce que li nga naqarlu sa bakkan a tax wante du man ndax su dee man rekk bala nga naqarlu laaj ma te mën mën naa faj lu nekk waaye tëb tëb naqarlu bakkan la nit ñi nga bëgg a forcer pour ñu gëm mënuloo ko gëm ci sama loxo la nekk ku ma ko def ci sa xol nga gëm ma ko deful ci sa xol doo gëm kon nag bul nekk plus royaliste que le roi la ko yàlla wax bu defee mu xam boppam Abu Talib moo jur Ali bokk na ci li gën a yonent ci yonent bi mooy ñu séddee ko xale ba moo tax bi Abu Talib gaañoo mu di ko ñaanal ndax li mu duggul ci lislaam mu di ko ñaanal pour yàlla jéggal ko ba tax ñi amoon mbokk yu dee yépp te jotuñu dugg ci lislaam di leen ñaanal pour yàlla jéggal leen yàlla xëy ni ko abu taalib ak ku dul abu taalib laa ci yemale ku bokkul ci lislaam bi mushrik nga waaw kon nag bu ma la déggati mukk nga ñaanal sa baay boobule mu mel ni kon naa yem ci kudd ñu rof la ci mbaf ngu moo ca tane waaw moo ca tane de ba tax na kon nag yàlla moo wax yonent bi mu denc ñi nangu sacrifice moo wax yonent bi mu denc ñi ko gëpp moom yàlla tey jigéen moo wax yonent bi mu denc képp ku mu xamul sa ndey xamul sa baay wante kooku yàlla jógloo na ko soppaloo ko yoonam mu nangu sacrifice bu góor nangu bu yonent bi xamul ndeyam xamul baayam itam soxnaam la te su ko yàlla waxee rekk am na ñu mu aar waaye ci biir aar bi it du weddi sunnaam mooy doomu aadama dafa mëtadi te bu mëtoon yàlla mëtadi looloo tax yàlla jëlloo yonent bi jabar ba noppi te suba su nekk mu xëy dem ci néegu yonent bi di ko àtteeg jabaram bu xëyee ma nga ca ak ñoom du nii bu leen defe nii defe leen nii coow li bare na ki nga ki leen denc fi gën di defar di defaraat rek te kat moo joxe ndigal li ba noppi pour wax la ni yàlla nit jaralu ko bàyyi sunnaam waaw te mooy di ko bàyyi muy mëta di rek ba faw moom yàlla itam di mët ba faw waaw lii rek la bu ko defee nag mu mel na nettali ko te dunu jëriñ ci tabax sunu dund jaru ko